comme euh, mbokk waa euh, internet bi ñuy suivre di ñuy seetaan di ñu déglu ci 221 people ñu ngi leen di jaajëfu bu baax di leen di dalal ci chaîne bi ñu naan ko 221 people ni ñu ko baaxoo di def ak sëriñ sépp tey nag dañoo ñëw fii dalalaat benn sëriñ bu mag ñu naan ko sëriñ Mansour Diagne sëriñ Mansour jaañ nag euh, bokk ci sëriñ si nga xam ne yàlla may na leen lépp lu dëxañoo ci wàllum ñaan ak wàllum paj ak wàllum asraar te ñu xamoon ko euh, mu nekkoon euh, fu ñu naan West Foire mais jamono yi léegi nekkut West Foire mu ngi xam naa dina ci biir néew yi dina leen ne wax fan la nekk jamono nekk nekk léegi mais mu ngi woon West Foire sëñ Mansour ñu ngi lay ziar bu baax di lay dalal ci 221 people. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di di nuyu mbokki internet bi yëpp di leen ziar ci scène bi nga xamante ne mooy deux cent 221 people di leen nuyu baax di leen jaajëfal ci seet bi ngeen ñëw seet si ñu ko tey fii ci Kër Massar. wax nga ko maa ngi lay nuyu mbokk yi ñu xam xam nañ ni ñu ngi xam fële ca Ouest Foire waaye yàlla dogal na moment yi ñu toll ñu ngi fii Kër Massar ndax comme ni ñu ko waxee woon fan yee ñu ngi koy wax ci benn scène yàlla dogal na su ñu nekkee ci yenn liggéey yi am solo war di dugg ay xalwa wala di def ay ñaan yoo xamante ni dafay laaj temps ak espace bu yaatu dañu nekk fii Kër Massar parce que dañ fi am kër euh, waaye terewul nag ba léegi ñu ngi Ouest Foire euh, ala kulli xaalin daal képp koo xamante ni yittewoo nga ñu wala nga soxla ñu soo ñu woowee dinañ la wax ci bërëb bu ñu nekk ndax tooguñu dañuy nekk Kër Massar di nekk Ouest Foire mais tamit dañuy wër di nekk fu nekk ci réew mi jërëjëf euh, Serigne Mansour ñu ngi lay fay di la euh, dalal bu baax a baax ci chaîne bi ñu naan ko 221 people wax nga ko sa biir ni nuyoo yaa ngi woon Ouest Foire mais jamono yi léegi yaa ngi Kër Massar ku la soxla être mën na laa fekk Kër Massar ni ko waxee ci sa biir wax. mais sama première question dama koy wéer lépp ci lu bokk ci wàllum listixaar ak seet jamono di léegi nag listixaar ak seet ñu bëri bëgg nañ ko xaw ma nag yéen Serigne si nu ngeen koy defee ba jaam yàlla yi gis ci seen bopp dégg naa ko aay ci listixaar nga ak seet. nan nga ciy defanteeg. Euh, jaamu yàlla jërëjëf jërëjëf ñoo ngi lay nuyu lu bare alhamdulilah di sant ci question boobu. ndaxte comme ni nga ko waxee xaar ak seet dafa mel ni tey nga dem hôpital war a faju te xamuloo lu la dal soo ñëwee bala ñu lay faj dañ la war a defal consultation consultation boobu nag mooy listixaar mooy seet listixaar ak seet nag benn la benn la listixaar baatu arab la seet baatu wolof la mais boo déggee ñu ne listixaar mooy bi nga xamante d'accord nañ ni moom yonent bi moo jàngale façon win boo xamante ni dañ koy defee nit ki da koy defee laaj yàlla ci soxla boo xamante ni daf ko am mu sollicité ci suñu borom suñu borom wan ko loo xamante ni si exemple lay doon loolu nag pour nga mën ko il faut nga sell doo nekk n'importe qui da ngay sell dangay ngay sell ñeme jàmm yàlla ñeme kurus ñeme zikartuur yàlla su ko defee soxla bu doomu aadama mën a am soo tëddee guddi bu la waxee soxlaam boo ko fanaanoo fanaanoo turam boo xëyee lu nekk ci moom di ko ko wax mais n'empêche que ne aussi tamit terewul am na benn xeetu listixaar boo xamante ni moom du question sell mais xam-xam la nit ki da koy jàng tey jii bu ma la ko jàngaloon yow man nga seetal nit da nga koy jàng mm-hmm. soo ko jàngee kooku mooy permettre nit ki bu la waxee turam wax la turu yaayam wax la ñaata at nga am nga déchiffrer tur yooyu génne ko adat ka am turu yàlla boo ko liggéeyee xool ko. man ko wax ban mooy vidéo man ko wax bi mu juddoo ba léegi lu mu jànkonteel ak fi mu jëm ci avenir am fan la jëm mhm. te loolu mën nga ko def sax ci ay minutes mhm. nga baal ma tuuti dogu ma la ci diggante boobu bëggoon na xam listixaar ak seet jamono ji lan moo leen wutale maanaam jamono ji ñu toll nii lan moo ndax am na différence li leen wuta li leen wutale Sénégal dañ jël lépp loo xamante ne wàllu seet la ñu jëmale ko ci wàllu pettaw ak wàllu suuf ak wàllu ak wàllu nàngam seet nag listixaar ak yépp ci wàllu seet la bokk waaye daf ci am yoo xamante ne lislaam nangu ko mooy jëm ci wàllu pettaaw yu jëm ci wàllu ram yu jëm ci wàllu suuf yu mel noonu yooyu moom lislaam nangu ko ndax yonent bi da ko daan tere ci jamonoom yooyu ñun duñ ko jëfandikoo mais am nañu méthode xeet yoo xamante ni dañ koy jëfandikoo yi nga xamante ni ci ilmu nujum lay jógee ci wàllu xam-xamu biddéew nga xool nit ki xam biddéewam fan la nekk xam nit ki avenir am lan la moom war naa am wala warul am wala mën naa jànkoonteeg lu koy lu koy gàllankoor ci àddunaam neex naa def dara wala neexul dara neex naa ñaanal wala neexul ñaanal soxla bi mu indi ci yow man nga ko faj wala mënoo ko faj yooyu yëpp ca seet nga koy xam am na solo bëggoon naa ci ñaar yooyu bëggoon naa xam ñaar yi nga ma sitee maanaam lii di seet ak listixaar bëggoon naa xam ñaar yooyu ban nga ci gën a maîtriser boo ci gën a mën yàlla dogal na comme ni ma la ko waxee li jëm ci wàllu listixaar sell la moo koy def te comme ni ma la ko waxee léegi ñun bu ñu nekkee fii Kër Massar yàlla ak bëgg tëju di jaamu yàlla tëju di def ay xalwa donte nit soxlawuñu ñun même bu ñu nit soxlawul ci ñaan weer wu nekk lu mu néew néew dinañ tëju ñetti fan yoo xamante ni dañ koy tëju wa pour gën a sell ci suñu diggante ak suñu borom ndax kat booy faj soxla doomu aadama yi war ngaa am hauteur bu ëpp bi nit ñi am maanaam war nga fexe ba nit ñi yàlla di tane tuuti au moins ci jaamu yàlla ba nga xam ne boo jàkkaarloog sa borom ñaan ko pour soxlas nit ñi faju bu boobaa seen soxla dina faju waaye boo tanewul nit ñi fi ñuy gis nit ñi lañ lay gis fi ñuy xaar nit ñi lañ lay fekk ah dëgg-dëgg bu ñu amee seen soxla bu ñu la ko waxee tamit da nga koy yàq waaye beneen bi nag moom comme ni ma la ko waxee mhm. li ko wuutaleeg boobu xeetu xam-xam la boo xam ne da koy maîtriser mhm. soo ko maîtriser loo ci bëgg gis mën nga ko cee gis jërëjëf Serigne Mansour euh, am na solo ni nga décortiquer ñaari ponk yooyu noonu damay dem ci sama deuxième question mu bokk euh, lépp lu dëx lañoo ci wàllum euh, ubbeeku ak wàllum kaaraangi tu jamono ji ñu toll nii képp ku yëngatu bëgg ngaa am ubbeeku ak kaaraange bu mat sëkk noo ci liggéey ak nan nga ci jëflante ak jaamu yàlla yi. jërëjëf Cheikh yaa ngi may soog laaj lii sama métier xam nga tey dañuy wax ni euh, boo ñëwee hôpital comme ni ma ko waxee sànq bala ñuy xam li la dal il faut ñu defal na consultation mais nag dëgg-dëgg nag li ñuy doyee nag sëriñ dëgg nag mooy faj soxla ko am soxla nga war koo faj wala ko feebar nga war ko faj loolu la ñuy doyee sëriñ te nag ba ci doole moo lu jëm ci wàllu ubbeeku parce que nag tey problème bi gën a bari ci àdduna mooy problème mu tëju. parce que taq-taq yi nekk ci àdduna bi ak afaarit yi nekk ci àdduna bi ak xeetu rab yi xeetu jinne yi nga xamante ni ñoo nekk ci àdduna bi di yàqal nit ñi waaye itam doomu aadama yi nga xamante ni dañuy yàqal seeni morom bari na bari waaye goo xamante ni képp ku di jëfandikoo cangaay boo xamante ni daf lay ubbi di nga bari loo yéetu te doo ko jot ubbi ki nag mooy waral nga waroon am mbir ci ñaari at am ko ci ay weer nga waroon am mbir ci fukki at am ko ci ay weer ngay jekk bi ak nit di la betteeg loo xamante ni yaakaaroo loolu ubbi ko moo la ko def donte si wërsëg yàllaa ngi la koy jox mais boo ubbi ko day tax li nga war a am day gën a gaaw loolu nag yàlla dogal na am nañ ci ay càngaay yu am solo. dama wax ni nit ñi ñaar nañ ko nañ ko def muy seen soxla. mooy nañ def seen soxla benn muy loo xamante ni daf leen di aar parce que yi yàqale bare na. te doomu aadama dama leen di wax toujours ni leen moo gàncax ñoo yam boo ko dul suuxat day dee il faut nga koy roose. di ko suuxat di ko produit di ko engrais di ca def ya ca war loolu nag mooy ñaam ci doomaatam aadama mhm. ndax euh, kaaraangeek wàllum ubbeeku yooyu am nga ci ñaan yoo xam ne moom ngay def comme wàllum càngat kaaraange ak wàllu ubbeeku li ñu ci am wàllu càngat la mhm. comme ni ma ko waxee mhm. comme ni ma ko waxee liñ ci am yëpp wàllu càngat la euh, waaye comme ni ma la ko waxee léegi da ci am càngat boo xamante ni mooy suñu liggéey bi nga xamante ni moo ñu gën a siiwal tey su ñu ko waxee daanaka ñu gën a bari ñuy jëflanteel moom la ñuy jëflanteeg moom. muy càngaay boo xamante ni cangaayu ubbeeku la buy ànd ak cangaayu kaaraange boo xamante ni cangaayal fu juróom-ñaari fan la. juróom-ñaari fan ngay sangoo cangaay bi cangaay boobu boo ko sangoo da ngay tàkk. cangaay boo ko sangoo ak foo mën a ne koo fa maaseel da nga koy ñaari fan nga koy sangoo juróom-ñaari fan yi nga koy sangoo day ànd ak suñu kurus. cangaay bi sax am na am na benn benn. benn benn échantillon buñ gis nga kii. gis nga kii liggéey liggéey liggéeyu càngaay baa ngi nii liggéeyu càngaay baa ngi nii liggéeyu càngaay baa ngi nii liggéeyu càngaay baa ngi muy ànd ak kii gis nga kii garab gi xam naa duñu wax tur bi mais ñi ñaan buñ ko gisee xëy na dinañ ko xam garab la goo xamante ni dafa nekk ci àll bi te garab gi su fekkee ne àll bi dafa ngelaw ngelaw luy mën a daaneel ay uma immeuble sax garab gi ronu garab gi xob ya ca nekk dara du ci génn ron garab nit ñi nga xamante ne dañuy am problème wu lu ñu am mu téye mu mu da du téewu seen loxo maanaam lu ñu am mu dem lii mooy faj seen soxla ak ñaan gii ñu leen di ñaanal muy wàllu ubbeeku da ngay am alal te da ngay jariñ te da ngay jariñoo garab gi loolu mooy jikkoom numéro un bi ñu ko mën a seede mooy moom xobam yi lu ñu wow wow ak lu ñu wadd wadd lu mu ngelaw ngelaw xob yi duñ génn taatu garab bi te garab gu ndaw la garab gu ndaw la ñi oh. ñaan xam nañ garab mm-hmm. ñaareel ba comme ni ma la ko waxee mm-hmm. day cangaay boobu soo ko jël tamit ubbeeku parce que ñun ubbi biñ la ubbi dañ la ubbi nga ubbeeku mm-hmm. soo ubbeekoo tamit da nga war a aaru nag xam nga ubbeeku te aaru woo moom mooy rey nañ la moo tax am nañu cangaay tamit boo xamante ni moom it moo cangaay boobu càngaay juróom-ñaari fan la ñooy ànd ñoom ñaar ñooy ànd ñu àndee ñoom ñaar nga koy sangoo boo sangoo bii guddi gi mooy bi lay aar nga sangoo ko guddi gi ni guddi lëndëmee moom ngay lëndëmee kenn du man ci yow lenn bi ci des boo xëyee nga sangoo ko ni bëccëg mel jant ni mel noonu ngay mel kenn mënu laa tere tàkk. jërëjëf cangaay boobu nga xamante ne mooy cangaayu bi lay tëj bi lay bi lay aar tamit. Mhm. gis nga échantillon baa ngi nii. Mhm. échantillon benn échantillon ngi nii ci ci ci ci cangaay bi. Mhm. benn échantillon ngi nii cangaay euh, nga gis ko. kii tamit xeetu garab la ci xeetu garab yi moom moom ñu bare xam nañ ko. moom xay la. xay. xam nga xay bokk na ci garab yi nga xamante ni ñoo gën a wex ci garab yi bokk ci garab yi gën a të euh, moom lay àndal waaye terewul ne am nañ fi yeneen xeetu càngaay yeneen xeetu càngaay yii dafa nekk liggéey yoo xamante ni mu ngi doon doog a pare nii rek ngeen fekk ko fi ñu leen koy wan waaye am nañu xeetu càngaayu ubbeeku façon bu ne jërëjëf ñu ngi ñëw foofu Serigne Mansour damay jàll ci beneen ponk boo xamante ni mën naa ne lëmb na réew mi mën naa ne génération jeunesse li ci ëpp vingt cinq jàpp trente ba trente cinq ans wàcc nañu seen lalu sëy mhm. maanaam mënatuñu dañoo tële mhm. wàllum néew kàttan du ma dégg da cee taxaw ñi lay seetaan 221 people te bëgg ku leen jàppale nga nga nga jàppale wàllum néew kàttan ñëw ci ma dégg waaye jërëjëf wàllu néew kàttan xam nga keroog rek maa ngi koy wax ci benn seen nit ñi bare na ñuy wax wàllu néew kàttan mais néew kàttan dafa bari ay façon mhm. gis nga bari na koo xamante ni néew kàttan gi ci moom la yam par exemple mi ngi am ay doom di am lépp waaye problème am moom mooy ni góor war a mel melu ko maanaam ni góor war a mel mën naa sëy di am doom di am lépp mais ni góor war a mel maanaam kattan gi góor war a am amu ko. ok loolu loolu loolu ci boppam lan gàllankoor yooyu lan moo koy indi ak lan moo koy def ci nit ñi ak lan mooy saafara. gàllankoor yooyu yi koy indi bare na bokk na ci rek li nga xamante ne mooy àndandoo yi nga xamante ni nit ñi dañ koy am waaye itam bokk na ci mooy nit ñi nga xamante ne xale yi nga xamante ne dañu téléphoné seen bopp xam nga tey par exemple góor comme jamono yu njëkk nga xamante ni góor dëgg-dëgg bala daan commencé am benn relation bi ak jigéen dina dem ba toll ci yenn âge léegi nag da ngay judd rek commencé gis lu ne nga koy gis ci jigéen loolu day dem ba day bàyyiloo sa si didi mais n'empêche que ni loolu yàlla dogal na may nañu ci xeetu paj yoo xamante ni dañ koy faj te bu di ko boolee plante yi nga xamante ni dafay jóge fii ci réew mi ak ay ñaan na parce que ñun lépp lu ñuy defal doomu aadama dafay ànd ak ñaan dafay ànd ak ñaan am na ci xeetu faju wàllu télé boobu loo xamante ni maa ngi koy wax keroog rek mm-hmm. ña bi bii moom lañ koy booleel. ñaam bi ñaam bi mel na moom lañ koy booleel ak benn liggéey boo xamante ni ci wàllu lasaraat xaatim boo xamante ni moom lañ koy booleel nga jëfandikoo ko naan li ñu la jox noonu lekk ñaam bi li nga bëgg ci kàttan ci ngóora nag ngay am. xam nga daan nga dégg mag ñi di wax ni maanaam ngóora ñaam bi day joxe ngóora mais boo déggee ñu koy wax mag ñi loo gis ñu wax ko rek am na lu làqu ci gannaaw. am na secret yu nekkoon ci gannaaw. Mm-hmm. mag ñi rek dañ toll woon ci kër goo dem ay secret nga fa moo tax yu bare daawuñu ko génnee mais ñaan bi bu ñu koy wax dafa am lu muy àndal te loolu mu ngi ci biir alxuraan mu ngi ci biir alxuraan aaya bi mu ngi ci biir alxuraan bi nga xam ne moom ngay génnee boole ko ak ñàmbi bi nit ki bu ko bu ko jëfandikoo lekk ko def ko ni ñu ko ko waxee topp ko ay fan yi ñu ko bu ko defee bu ànd ak soxnam li soxnam bëgg ci satisfaction da koy am ñaareel ba mooy dafa am koo xamante ni ci wàllu sëy moom dafa mënul am doom ngóoraam am na lépp normal la mais mënul am doom kooku tamit feebar te dañ koy faj. ban feebar loolu kooku feebar la. Mhm. parce que góor ndoxam man yoom dafay am problème. feebar la am na ci loo xamante ni wàllu docteur la il faut nga dem ci docteur yi ñu faj. Mhm. mais nag am na koo xamante ne day dem consultation dem fépp gisul lu ko war a mën a faj. Mhm. gisul lu ko war a mën a faj. boobaa yooyu tamit am nañ ci ay ñaan yoo xamante ne dañ koy faj. gis nga ndoxum taw bii am na ñaan yoo xamante ne ndoxum taw mii bu dara raxul moom ngay taataan. moom ngay taataan. am ñaan maanaam taw bi la première taw bi taw ndoxum taw bu mu mënti doon. ndoxum taw bi. Mhm. nga am ndoxum taw bi taataan kooku moom ngay boole ak ñaan gi ñu lay jox ngay xëy bus bu nekk naan ci benn kaas bu soobee yàlla li nga xamante ni moo nekkoon sa jàngoro ci wàllu sëy ak ñàkk am doom yàlla dina la dimbali. jërëjëf am na solo Serigne Mansour damay jàll ci beneen ponk muy suñu beneen question lu bokk ci wàllum sëy du mën a sëy nag sama xel day jëm ci wàll diggante góor ak jigéen. te jamono jamono ji léegi mën naa ne ci wàllum sëy gis nga problème yi ba léegi da ciy am sëy bi ni mu yombe noonu la tas ak yooyu noonu am loo ciy wax waaw dëgg-dëgg xam nga tey jii nii dama wax ni képp kuy ñaam te yàlla dimbali la nga am xam-xam te dimbali woon nit ñi ci négocier yi bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàccaatoon tey woote xare doo jóg ndax li nga xamante ne moo yokk ko xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñu gis ni jamono bi problème kese la yi tas rek koo koo laaj ci jigéen ñi man de sëy naa am naa benn doom tas naa koo laaj ci góor ñi amoon naa benn soxna divorcé naa léegi te problème bi ñu war a gën a réglé mooy problème mu sëy yi gis nga bu sëy yi réglé woo rek société bi réglé wu. léegi nag problème boobu. yàlla dogal na comme ni ma la ko waxee dañ ciy dimbali jigéen ñi bu baax a baax gis nga. te nag li may wax ci problème mu sëy ñaar daanaka problème yi jigéen ñi rek ñoo ko am ñoo koy yanu ñooy ñëw ñooy dem ñooy sonn li koy waral nag bari na am na ci yoo xamante ni ñaar ay rab dina ko waral parce que am na diggante yoo xamante ni si am na ay rab yoo xamante ni duñ ko bëgg dañ koy yàq expliqué woon naa ko benn jour ci xeetu rab li tax ñu naan rab naan jinne xëy na man xe wàllu faju wàllu rab eh, yàlla dogal na sawaruma ci parce que comme ni ma ko waxee gis nga wàllu rab ak wàllu jinne bari na ñuy génn ci télévision bi di wax damay nangam jinne damay nangam rab damay nangam jinne li ñuy wax dara du ci dëgg gis nga jinne ak rab amul martaba boo mën a am te amuloo maanaam koo xam ni maamu jinne la par exemple koo xamante ni si dafa juddu ci xeetu jinne déet euh, sëñ Mansour ah. yow da nga naan peut-être man xawuma ko hmm. mënuma ko mais man damaa yaakaar sëriñ si faj kay ci jinne am soxla jinne ak ay kii jinne dara tax ñu koy def d'accord naa dañ ko man bu baax li may bañ dégg xam nga mooy la hmm. mooy damay faj jinne di faj rab te dara du ma ci fekk maanaam damay mbugal jinne ji pour lan nangu woo li tax nangu hmm. mooy gis nga jinne yàlla daf ko bind ci kattan goo xamante ni moo ëpp kattan doomu aadama yow mi koy def da ngay assumer les responsabilités mën ngaa jàng ba xam ko nag mais boo gisee ñu bare duñ ko laal dañoo xam ne ca nekk yow mi koy def danga nga war a assumer les responsabilités di wax nit ñi dëgg gis nga jinne mm-hmm. nit nag mën na am ba ci jinne bu tax mu mën di faj jinne te dara du ca fekk nit kooku exception la wax naa la ko léegi mm-hmm. parce que jinne day jur nit jinne bu juree nit nga bëgg ci set yooyu nag parce que nit ku góor bu sëyeeg jinne ju jigéen mën nañoo am doom doom jooja nag mën naa dem ba am ay setaat yoo xamante ni mën nañu fi nekk nekk ci biir nit ñi nit ñi jàppale nit fekk am nañu xeet mu ñu ànd ak jinne waaye nag jinne ju jigéen jinne ju góor moom mënta am ak doom nit ku jigéen parce que mën nañu jinne dafa tàng loo gisee nit ñi seen ëmb yi di yàqu ak yu demee noonu mooy da ngay tëdd guddi jàppoon nga ëmb nga tëdd génte say rab rab yi nga sëyal noonu moom moo yàq ëmb bi ba nga xamante ni euh, parce que man yu bu duggee ci biir ku jigéen gi tàngaay ba mooy yàq ëmb bi boo jógee rek def fausse couche. am na solo mhm. jërëjëf euh, sëñ Mansour dañuy dem ci beneen euh, question ba léegi jamono bi léegi nag feebar yi mën naa ne dañoo bëri xaw ma nit ñi dañ ci amut solution xaw ma ndax fu nañ fëgg nañ fa bunt bu ne ñu koy fëgg pour ñu defal leen saafara. Mhm. lu bokk ci wàllum mën naa ne hémorroïde bëri na jamono ji léegi. Mhm. ulcère ndoxum siti yooyu noonu. loolu nu ngeen ci jëflanteeg leen di. seet si. waaw jërëjëf xam nga nag euh, man comme ni ma ko waxee sànq li ñu gën a nit ñi xamee mooy wàllu ñaan wàllu ñaan. Mhm. ñu lépp lu ñuy def. Mhm. ci alxuraan dañ ko teg. lépp lu ñuy def ci turu ci turu yàlla boo xamante ni dañu ko werd ba suñu borom nangul ñu ci lañ ko teg. Mhm. n'empêche que ni nag. sooy liggéey ci wàllu turu yàlla di liggéey ci wàllu alxuraan toujours. tur yàlla boo gis wala saar boo gis ci alxuraan wala aaya boo gis am na garab boo xamante ne moom la composé soo ko boolee jëfandikoo ko mu faj nangam mais kantaan nag feebar yi nga xamante ne dañoo suivi ci moo xam ay cancer ak ay yenn xeetu feebar yooyu dëgg dëgg wax dëgg yàlla ñun duñ ko faj mën nañ la jox conseil nag ci yenn genre defar yenn genre composition yoo xamante ne mag ñi daal nañ ko composé te boobaa yooyu duñ la ci laaj dara parce que fajuñu ko ñun wutuñu ci dara waaye nag nit ki bu fekkee dafa am lu koy sonal moo xam asma la moo xam nangam boo xamante ni si dafa am lu ko sonal ñàkkul ne am na garab yoo xamante ni yàlla dogal na ñu yàgg toog ci keppaaru mag ñi parce que booy wuti la ngay wuti di nga fa amaale yeneen yoo xamante ne xëy na yooyu opté woo ko mhm. mais nit ki bu koy jëfandikoo wàllu ndoxum siti wàllu hémorroïde wàllu ulcère wàllu diabète yooyu yëpp dina ko ci dimbali waaye nag dañuy wax ñëpp mu leer faj mhm. fajuñu yooyu mhm. yooyu daal li ci gën a gaaw bu dalee nit ki na dem hôpital waaye nag bu fekkee ne loo xamante ne dalaa dal yàlla dogal mu nekk loo xamante ne xëy na teg teg ko doomu aadama par exemple des fois nga dégg nit ku ñëw ne dem naa hôpital ba sonn waaye man daal problème muy yaram wuy tàng digg gannaaw buy tàng wala wóom yi tàng gis nga nit suy toog ba yàgg wóomam di tàng yenn heures yi wala digg gannaawam di tàng yenn heures yi mhm. wala boppam di métti yenn heures yi mhm. ñaar moo ko mën def mhm. na xam ni ay rab ma ngi ci moom moo ko jàpp wala boog am na liggéey bu ne ci moom surtout nag digg gannaaw gis nga booy toog ba yàgg sa digg gannaaw di tàng jógal am na liggéey bu ñu def ci yow am na liggéey bu ñu def ci yow foog nga foog nga dem càngatu ñu sangat la nga tane te gis nga sangat nag wax naa ko ba tàyyi mhm. gis nga càngatu alxuraan yemul ak beneen xeetu càngat mhm. yemul ak beneen xeetu càngat gis nga des fois ma wax ko yenn mbokk yi am na benn mbokk ndeysaan benn jigéen bu ñëw fii fan yi mhm. ni ma man de dama jaaxle ndaxte dama am problème war a dem bitim réew waaye jaar naa fu ne dem naa fu ne. Mhm. waaye dama am problème dëgg dëgg dëgg dëgg ci sama wàllu sama wàll te dem naa fu nekk ci réew mi dem naa fu ne càngatu. ma ne ko est-ce que la daan càngat alxuraan la ñuy jëfandikoo. Mhm. mun ma jëfandikoo wu ñu alxuraan. Mhm. ko gis càngat bu dul càngaayu alxuraan. premièrement boo demee li la borom càngat bi di wax li mu la njëkk a wax xam nga mooy lan. mooy ah yaa ngi sangu de waaye nanga xam ni. nii nga fi sangoo nii. noonu ngay xel di dellu see. maanaam càngaay bu dul càngatu alxuraan. soo ñëwee. day dindi nag lépp lu newoon ci boo sa sangoo mu dañ waaye boo demaatee da mën naa ñëwaat waaye bu dee alxuraan nag moom moo lay saafara te saafara boobu mu la saafara bu la yàlla dimbali mën na laa bañ a dalati alxuraan moo lay taal taal bi mu taal bu la yàlla dimbali mën ngaa bañ a fayati leneen lu na taal lu jógewul ci yàlla jógewul ci alxuraan jógewul ci turu yàlla bu la taalee bis mën ngaa fay leneen lu la dimbali ci musiba lu dul alxuraan bis mën naa ñëw loola gàllankooraat. am na solo jërëjëf euh, sëriñ Mansour dañ lay bàyyi nga tàggatoog euh, ñi lay seetaan di la déglu ci cent vingt 221 People ba beneen jëmu jamono incha allah. jërëjëf ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal euh, Sénégal di ñaanal waa réew mi yëpp di leen ñaanal yéen tamit ci déplacement bi ngeen def wax dëgg yàlla kontaan nañ ci trop. Mhm. parce que li ngeen di def dafa am solo. mooy nit ñi am problème war a gis ñu. parce que da ngay gis koo xam ne surtout ñu nekk bitim réew. nga gis koo xamante ni dafay am problème nekk fa amul lu mu liggéey tey ngeen permettre que mu toog taal téléphone am gisee nit koo xamante ni. mooy defar àddunaam tey ñun li ñu yàlla dimbali nañ ci ay nit ñoo xamante ni. premier jour ñu woo ñu téléphone ci la ñu xamante ak ñoom ci loola moom la ñu jàppante ak ñoom résoudre seen problème yàlla boole ñu ca ba tey yàlla def leen comme ñoo xamante ni ñoo bokk lépp. Mhm. nekk suñu ay njaboot. suñu ñibbisee fii ci réew mi li ñu njëkk def mooy ñëw seet suñu suñu ay kër. loolu nag yàlla moo ñu ko defalee sutura. Mhm. dama koy wax toujours. Mhm. ñun mënuñu lu kenn am mënul xamuñu lu kenn xamul nit ki lu mu sute moromam yàlla ko dimbalee. yàlla moo ñu dimbalee yooyu. Euh, ñu ci dimbali doomu aadama yi képp koo xamante ne dafa am problème bu ñëwee incha allah luñ ci man daan ko def pour dimbale ko kon ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal weer yu ñëpp jàmm di leen jox dig daje ci yeneen di daje asalaamaaleykum wa rahmatullah gërëm nañ leen sant leen bu baax.